dañu wax nii nañu nañu defal sëriñ Babacar si jàkk euh, am na tubaab bu nekk ca tugal moo doon chef de gouvernement booba indépendance yi amagul mu joxe des instructions fermes ni bu jàkk ci joxe des instructions secrètes ci gouvernement général koo jox gouvernement du Sénégal ñu ni jàkk ji du am waaye fokkit am ku leen couvrir mooy nañu wut juróom ñett fukki signature nit yàlla ñeen fukk Mauritanie ñeen fukk Sénégal te fekk déposé naa dossier bi ba noppi bi signature yi jeexee dañuy nakadal mag ñi ni leen jàkka ji du am ba ñoom ñépp ma yëg ci seen pas-pas yëq-yëq ma dajale leen ca tiwaawan ni leen benn baat rek laa leen di wax ndax mas ngeen a dégg ñu tàgge sunu borom ñu ni ma déedéet ma ni fekk tàggewuñu ko jàkk ji dana am ni sangu njolloor waxati na ni bu mu juddoo ba léegi musuma dégg baat boobu la bu ñu man day Jibril Gaye Samb Ngoné maa koy soog a dégg waaw waaw wallaay ma dem seeti gouverneur ba fekk mu ñaawal kanam nga lool bu naka laa agsi rek mu ni ma lan la ma agsi ni ma dee dossier jàkk ji la moo la indi maa ngi juróom ñett fukki signature yu ci opposé ma ni ko wante doo sëriñ mu mel na ko jaaxle ma ne ko xamuloo ni doo sëriñ chef administration nga ma ne ko jox dossier boo xam ni mi ngi ànd ak titre foncier mi ngi ànd plan bu travaux publics approuvé ma ne signature rek lay laaj si waaye sama wàllu yàlla laaju ba gis kanam gi commencé di rafet ba mujj mu laajal ma tee ñu defaral ma tee indi mu laajal ma petit fou jël le petit indil ma ñu commencé waxtaan tuuti mu jël téléphone bi téléphoné commandant cercle ni ko jox ko autorisation génn naa ci bu moog ci kenn dafa man boppam waaw mu yónni la ya, mu antu bu mu tax nga defe ni yow erreur bu mu ko garab erreur gënu ko garaaw si yàlla dafa mën boppam bu la yónnee mu réussir bu mu tax nga defe ni yow bañ ca jógee nag ñu ne ah lenn daal moom mënu la nekk moo di kenn du leen may ngeen jàng burtu jox nañu ay instruction yu ferme jàngee burdu ñu fetal leen ma woo ñépp ñu ñëw man leen ko ngeen gën a bëgg ci àdduna ñu ni sëñ Babacar Si ma ne namm ngeen ko la namm leen ko ñu ne namm nañ ko kay ma ni kon nan jàngi sunu burdu jeex na kala la naka la ñu julli timis ma ne ku nekk buy ñëw na sol mbubb bu weex ndax ba ñuy fekki sëñ Babacar mbubb bu weex rekk a yàlla ci ñu ñëpp sol mbubb yu weex ñu ñëw jàng si burtu benn officier français ñëw déy ma ni ma gouverneur nee na bañul ngeen jàng kurdu bi waaye ngeen wàññi haut-parleur ba na boo amee kilifa bàyyi ko muy def waaw parce que ci ngay xam jom yàlla ca yoonu mbuur ca yoonu mbuur ma dem mbuur ñu ni du fi wax yu jël ci doomu aadama lu dul jeex drogué leen jox leen ay soupière ki ay assiette pour ñu di ko dóor li bu mu fi wax ci kaw taabal taxaw ci kaw taabal mu mel na yooyu passé boo ko dee seet te sa kilifa doyu la foo jëm tubaab yaraan fii ni du ko fi waxe politique yaraan fii ni du ko fi waxe sëriñ siraan fii ni du ko fi waxe nga taxaw ci kaw taabal waxe ko defalee ba noppi nag yaa ca des su la ko defalee ba noppi yaa ca des Alaaji Salif Mbeng moo jóge Ndar dem seeti sëñ kër Si ni ko liggéey dégg ci coow li yépp benn nit a ko waral sa doom bu ñu wax Cheikh Tijani dama bëgg ci sa darajay bopp nga won ñu sa bokk ci moom wax naan danga ko bëgg def sa xalifa te xaleel mu ni ko ko wëtt alaaji Ousmane Ndiaye Thiès Ousmane Ndiaye Thiès bu ndar ngeen xam ko nee dañu nekk ci fexel la nee na ñu tudd ma sëriñ aman njaay sirwaal ca la ni lu mu ñaan yàlla def booba demi junni amna solo ne ma yóbbul ko téeméeri junni nee mu ni ba doo dem di da ngay ma seet ba xam lu xew na bërset mu woo ma ma ñëw mu delloo ma téeméeri ju ne ma ni ko lu xew mu ni ma dama gis ñu ceene sëriñ Babacar Si ceene tànkam ceeney loxo te comme dundatul ku toll moom dara jag leen koy bëgg a def bu passé lu ñaaw dana Joseph Mbaye ni ma man nii maa seeti woon sa maam ju baax ja te booba xaw ma ne sa maam la muy àlla jàpp lay sow ca dagan ne ma yóbbul ko téeméeri junni leneen ko nga defal nu ñax ne mu ni ma ba du Cheikh Tidiane tax ne ma ni yecc mu ni ma buñ koo boot ba léegi ma ngi ko ñaan ni benn bés du ko fat ne dellu nga téeméeri junni nee na ma ni kon nag pexe politique ci des nañu neexal ñu jege sëñ Babacar Si ñu fexe boo dootul déglu Cheikh Tidiane nee na ñu dem ca dema dema dem ba yaakaar ni jeexal booba ñoom xamuñu ni góor gi sëriñ Babacar maa ko responsabilité fukki si ñu ni def nañu travail nañu dem seeti góor gi wax ko ay soxlay caaxaan yu bare mais mu ne tekk ba mu yàgg ni ah xam naa dafa mel ni def fi fekkul nag borom kër gi ngeen xaar ba mu ñëw nga dundandoon ci jàmm jaaru leen fenn naka ngay attaché ci moom mënul nekk mënul nekk coono bu jiitu bu jiituwul pas-pas du mën a nekk coono bu jiituwul pas-pas du mën a nekk mënul nekk fekk nag sëriñ muniru saar daan na wax ni bu ñu nu an yàlla ñëw na dakar ne di nga gis ku defar ndékk lu baax di ko wut waaye di nga gisit ku wut kàccir gu baax di ko wut pour caw ko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 njabooti jàmbur lañu benn bés ma dem tool ya asamaan si xiin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 bi dafa am lu ma la bëgg wax ma ni ko lan la mu ni ma bul ragal dara ci loolu rek laa lay wax mu ni ma gis la sa tant Aminta Sekk ca Ndar waree ñëw Tiwaawan te yàlla dogal famille ba d'accord ni na wàcc ci astukan mu ni ma keroog sa maam Safiyatu ñaŋ man la woo wax ma na mu ca bigi ni ma keroog laa xam nit adopté na sa ndey comme doom mu ni ma lam wax ci moom moo tax ma ni la bul ragalati kenn ci kaw suuf